nuy naa ñëpp weeroo feeñ na ñëpp ànd masa woor ci askanu sunu gaal yal nañ ko àggaleeg jàmm amin waaye nag askanu sunu gaal li fi xew ren est-ce que mas naa am sax koor gu ñëw fekk fi jàngoro ji mel ni coronavirus mu mel ne tulleeg man koor gi ñëw fekk fi mbër moo xamante ni mbër la moom mbër mu am doole mbër mbër mu gaaw mbër moo xamante ni yow mi muy bëreel doo xam fu mu lay jaar ci corona yaa nu sonal sonal nañu jaaxal na nañu ndax fi mu toll nii ci askanu sunu gaal gis nañ fi kaa yi yokk fi noo xamante ni musu nee yokkee lu ëpp juróom benn fukki nit yu ko amandoo ci benn bis moom coronavirus mu nekk lu doy waar ubbil yéene kaay bi di Thiès Info ma ngay fësal ak di xam leen ni mbir ma loxo yaa ngay ëpp de waaye lu mu metti metti waa naa ñoom gis nañ seen bopp bu baax a baax a baax ci corona bi sonn nañu waa Touba ñoom itam mitti na ca ñoom Mbàkke Pout lay lay la la ak ci waa wan itam kenn demul mu des Kaolack nag mi nga xamante ni moom am na première cas bu njëkkam ëpp moo ca yes te fës ca mooy lañu Sénégal indil Sénégal ma ngay fësal ak di xam le ni kaa bi kaaw la xam kaa bi kaaw mu jóge moo di Touba nga ni ma lay lay la la lay la kàddu nag ko fësal xam le ko du kenn ku dul gouverneur région bu Kaolack yooyu la ca metti mooy moom waajoo ji nga xam ne dafa jóge Touba ñëw Kaolack indaale mbir mi moom ci jëmi boppam 26 contacts am na ko ëpp law ca Kaolack ay waay waay waay waay waay fu nu jëm waaji waaji dafa ni jaar na Ndakaaru mi ñu def moo yow ba tey la nga xam ni moo doy waar te yéeme mooy conducteur ub jakarta bi dawal kotub jakarta bi nga xamante ni moo dawalum motoom dawalub jakartaam ba ca tiwaawoon yóbbu fa mbir ma waaw dawarkatu moto bi nga xam ni moo yeboon waa ji am feebar bi jëmoon tiwaawoon ëpp law dawarkatu moto boobee ah yéene kaay bii di sunu gaal 24 ma ngay fësal ak di xam le ni moom dawalkatu moto ba gis nañ ko foofee ca Bambay eh waay waa Bambay fu ko waral sabab ko du lenn lu dul xarañteefu préfet bi di woo ci ay Aïssatou Touré Ba moom ay Aïssatou Touré Ba gannaaw ba mu xamee ni nag waa ji nga xam ni moo yóbbu woon ki am coronavirus bi fële ca Tiwaawan Bambey la dëkk ca la commencé di def ay recherche am laa la wax borom moto bu nekk laal la wax mu woo la di la laaj di la enquête waaw waaw kenn ku ci nekk ci ñoom laal la wax wax ëpp low ba mu gis waaja ba ñu ko gisee la ñu njëkk def moo di moom ci jëmmi boppam ñu isolé ko isolé boole seen koo xamante ni bokk na ak moom rek laa la wax <laughs> dugg amul génn ñoom rek confinement total moo gën a wóor Thiès info ni ma waa yow da nga dul wax ci décès bi nga xamante ni amate na ma ni ko wax nga dëgg de septième décès laa la wax ëpp la waa yow covid 19 bi fu nu jëm ak moom ci naka noonu Sénégal ngay fësal ak di xam la naan yaawu jaade yëkkati ne kaddu ay waay kaddu yu reelu sax ya nga xam ni moom la yëkkati njiitum réew mi ko jagleel moom yaaw jaal ma ngi naan njiitum réew mi président Macky Sall waaye yow waaye yow tey ngaa ubbi sunu jàkke yi eh waaye ndaw Samba ubbil juma yi moom yaaw jaal nag ba mu gisee septième décès bi ca la ko wax nga ma maa la ko mbii mi ñu dem mani la nag ba tey la xam ni moo di couvre-feu bi ma ngay wéy di am ci askanu sunu gaal ak am gu mu am am ak lu ñu ko respecté respecté am na ci jeunes yoo ni laa la wax ba tey yeewooguñ ci conscient wuñ ci li nga xam ni moo a jóg benn yoon na nga xam ne noonu la ñu war a taxawee ca couvre-feu ba ay waay waay waay waay waay toog leen seen kër moo gën a wóor loolu képp nga ca war a taxawee dem moo taxit ginnaaw gone ya nga xam ne ñoo dëkk ca Médina am na yeneeni la wax eh waay ndaw Samba ñooñee nag ña nga dëkk foofee ca wàqi naam nim zaat laa la wax ñoom nag la nga xamante ni moom lañ doon def déglu ma wax la ko déglu ma wax la ko dañu doon célébrer famille boo xamante ni dafa jógee ca quarantaine ba eh waaye ndaw samba loolu wóor na ci naka noonu la la mu leeral mooy fi mu toll nii ña nga xamante ni ñoo war a am bourse familiale laa la wax ew eh, way am ci seen jëmm bopp ñooy baagante laa la wax ëpp law diggante poste ak seen kër mujj gi nag ñu dem ba ca buntu bureau poste ba ni fa ngang toog ew eh, way ñii taxaw ñii tekki seen i fas waaw loolu moom mbaa du jur rassemblement waay waay nañ leen jox seen i bourse buñ ko joxee rek ñu jóge fa de ñu dem ci jamono ji ñooñu di laaje seen i bourse Thiès moom ñoom am na ca benn koñ boo xamante ni ci jaaxle lañ nekk ak naqar ak tiis muy koñ boobee di ngent ñoom waa ngent nag li leen tiital jaaxal leen mooy corps sans vie bi nga xamante ni retrouvé nañ ko foofee ca quartier ba eh way na samba néew ba nu fa gis ubbee yéene kaay bi di Sunugal 24 ma ngay xamle ak di fësal ni waa ji war naa am quatre-vingts ans laa la wax ëpp la tey foofee nga xam ni moo di Thiès Thiès info ni ma lu toll ci soixante-neuf taalibe laa la wax dellu nañ seeni kër de nga ni ma Sénégal daal di koy feele du fësal xam di ni nag lépp li ko waral du lenn lu dul bañ coronavirus bi daal di law foofee ca Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar eh way taala si ndax sax ñàkkul ni jox nañ leen li nga xam ni moom la ñu war a dundee yóbbul nañ leen ceeb yóbbul leen lépp lu ñu leen war a yóbbul waaye dafa mel ni loolu doyul laa la wax ndax ba léegi am na ci yenn gone yoo xam ne ñu ngi ci mbedd mi tax ñu daal di leen di jël yóbbul seen i waajur moo gën a wóor do samba ñu dem banu jëm di fa jaar te di leen fa tàggoo nag mooy li ñu sunu gaal 24 indil sunu gaal 24 ma ngay fësal ak di xam le ni foofee ca Touba ab benn policier moom moo doon jàmmaar lokki gendarme laa la wax ëpp l'observateur mi ngi ko fësal ni ki àjjuma laa la wax ëpp law ay waay lu nu jote demal sunu gaal 24 lu nu war a mën a jote rek lu ca xew demal sunu gaal 24 waaye daal police ba moom ëpp la bi ma gisee li sunu gaal 24 bind dama tiit un policier tabassé par des gendarmes ñoo ko dóor ay lay loolu sëy laa tiir lii de aw ma lenn lenn lu ma ciy teg bu baaxee rek bësal clavier ñu dem jàggin jëf mbokk yi seen mbokk seen xarit euh, Faldamel di kek yéen euh, ci ba tey coronavirus bi tey jii nag li nga xam ne moom la ñu bëgg a waxtaanee du leen lu dul euh, commerçant yi nga xamante ni jàpp nañ gis ni ñoom commerçant yi ñoom ñoo commencé jël li nga xam ne moo di virus bi ko lawal di ko fësal di ko tas ci askanu sunu gaal ndax daanaka marché boo dem rek ña fay teew jóge Touba day bari ña fay teew jóge Tivaouane day bari ña fay teew jóge Thiès day bari ña fay teew jóge Mbacké jóge feneen ak feneen foo xamante ni sax xëy na euh, séntu nañ fa ba Pout euh, foo xamante ni sax xëy na séntu nañ fa feebar bii di coronavirus day bari euh, te loolu la ko fay indi du leen lu dul ñi nga xamante ni ñoom ñooy jaaykat yi ba tax na kon jaaykat yi aussi tamit il est temps que ñu wax ak ñoom il est que ñu jéem jéem wax ak ñoom ci ni nga xamante ni noonu la ñu war a doxee waaye itam nguur gi tamit la nga xamante ni moom la ci war a def parce que jaaykat bi bu fekkente ni moom it jaayul daanaka peut-être lu muy dundee euh, day xaw a yéeme ci moom waaye koo xamante ni xëy na yaa ngi jaay ba yàlla may la benn am am bi benn kom bi xëy na euh, toog sa kër jéem a xéewlu li nga xamante ni moom mooy sa koom bi la yàlla jot a may nga jéem koo xéewloo toog toog toog xëy na balaa jeex li nga xamante ni moom mooy mbas bi jóge fi waaye bu fekkente ne rek yenn jaaykat yi dañoo fippu di di di bëgg di dem ci yenn dëkk yi te cas communautaire tas un peu partout au niveau national ah cas communautaire yi bari fi lool euh, je pense que ni bu yenn jaaykat yi di bëgg di jóg di dem di jaay chaque jour bu ko yóbbuwutit mën nañ koo indi kon donc gars yi nan nan nan moytandiku jaay ngeen jaay local fi nga xamante ne fa ngeen dëkk ci commune bi ngeen dëkk village bi ngeen dëkk ay jaaykat ngeen yor ngeen marchandise mënoo leen ñàkk bañ a jaay fok naa ne la nga xamante ni moom ngeen yor di marchandise seen waa dëkk wala seen waa village soxla nañ ko ngelawaay toog leen seen dëkk wala ngeen toog seen village ngeen jaay leen ko c'est mieux loolu moo gën à ngeen bëgg a génn bëgg jël njaay mi di ko di ko génne ci yenn dëkk yi ngir ga jaay loo xamante ni peut-être mosoo leen koo jaay ngir am koom saay koom am na lu ko féete kaw koom li nga xam ne moo ko féete kaw mooy wir gi yaxam koom li ko gën a kaw muy mooy mooy mucc mooy nga wir sa njaboot wir te feebar bii di coronavirus pour nga mucc ci pour mu bañ laa kor doo def lenn lu dul toog sa kër nit ñaa ngi wax takk masque bien sûr que oui takk max waaw dañ ko war a takk ci ni mu ware waaye li gën a gaaw gën a efficace du lenn lu dul toog ci biir kër yi gars yi surtout les commerçants s'il vous li ngeen yor yem leen seen commune ngeen jaay ko fa li ngeen yor yem leen seen village ngeen jaay ko fa mais su ngeen bëggee dëkk bu nekk ngeen bëgg faa dem di jaay dëkk bu nekk ngeen bëgg faa dem bu ngeen ko yóbbuwul mën ngeen koo indi te imaginer leen da ngeen di yor njaboot vous les commerçants da ngeen di yor njaboot mais imaginer nga dem ci benn dëkk tey jël ko fa indil ko sa kër. lor nga sa bopp. lor nga ñi nga doon jaay ci yoon bi lor nga ñi nga doon rombanteel lor nga bu fekkente ni jaaykat bu mag nga boo yoree oto ak loo mën di yor am nga ay yoo xamante ni dañ lay jaay loraale nga loraale nga ñi nga xamante ni ñoom nga romb bu nga wàccee sa woto avant ngay dugg sa biir kër sa koñ salaamaaleykum ya maaleykum salaam ya xaw ma joxe nga loxoom joxe loxo waaye lor nga leen lor nga ñi nga xamante ni ñooy sa waa kër te lor gi nga leen lor laataa nit ñi di xam ne feebar bi mu ngi ci yow yow sa waa kër mën nañoo génn lor sa waa koñ imaginel affaire bi ni muy gaawee imaginel tas bi ni muy gaawee imaginel ni nga koy jëlee di ko di ko fësal di ko sànni di ko biiral ci askanu sunu gaal. te kenn nit rek rek rek rek moom rek war naa mën a jaar foofu yëpp rawatina nag ñu ni cas communautaire yi. ils sont nombreux gars yi kaay communautaire yi dafa bari ci askanu sunu gaal kon nag gaañ yi ngir ñu mucc ci nan toog nan toog s'il vous plaît surtout les commerçants encore une fois yéen rek instant bi nii yéenay circuler kon toog leen seen kër yi même bu ngeen mënul toog seen kër yi jaay leen seen dëkk yi c'est mieux c'est moo gën parce que feebar bi doon na loo xamante ni mbër la moom xeex ak moom yombul. lu États-Unis munul dara. ah lu lu lu lu munul dara. lu dëkk yu mag yi munul dara. les pays les plus développés du monde. yi munul dara. waxantuma laa ñun ñi nga xamante ni dañoo nekk en de développement ñun ñi nga xamante ni ñun waa Sénégal sunu am am bariwul. gaañ yi dimbali leen ñu jàppale leen ñu jàppale seen bopp jàppale leen ñu dimbali yéen ñi nga xamante ni ak seen njaboot ndax tey jii képp ko toog ba mucc ci raw nga rawaale sa njaboot. dafa am benn euh, waay entreprise la yor. entreprise presse la yor. mais moom bi mu yëgee ni feebar baa ngi dugg Sénégal waxuma bi mu faatee de faatagul feebar bi dugg na Sénégal waxuma la bi ñuy am centaine boobu amagul sax centaine feebar bi dugg na Sénégal rek tak agsi na ci région la mu njëkk a def mooy tëj këram. te organe de presse la yor ne nay continuer di def lépp li nga xamante ni moom la doon def waaye puisque gis na ni on peut travailler en ligne. mu tëj këram continuer di liggéey en ligne. ay monteur ña nga xam ñooy monter ña ngay monter ñay ñay liggéey ña ngay liggéey lépp a ngi dox waaye këram picc doo ko fa gis njabootam kese mais loolu exemple la boo xamante ni ñoom moom la ñëpp war a def ku ci nekk gaañe na nga toog sa kër toog leen seen kër s'il vous plaît le coronavirus dafa dangereux day rey. eh sérieux day ray pour mu leer Sénégal xam nga sénégalais doo ko wax rek ni ko ay danger ak yooyu da koy wax li fi ne day rey rey na ci ñun waa Sénégal juróom-ñaari nit ak ñamu jot a rey ci bitim réew te di ay sénégalais gënuñu leen ëpp ñu leen juddu ëpp ñu leen dara. kon nag gaañ yi s'il vous plaît nañ toog suñ kër yi bu dee mooy solution seen mbokk seen xarit Fall Damel ci kàddu gi di leen jox dig daje ba suba ak jàmm jaagin jëf.